Je vous remercie. Je suis très heureux de, du niveau d'exécution de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, l'hôpital d'instruction des armées, qui, comme vous le savez, est l'une des références en matière d'établissement hospitalier. Évidemment, la particularité, c'est que un hôpital militaire. Euh, j'avais voulu doter cet hôpital euh, d'une polyclinique qui aurait toutes les facilités et toutes les commodités, à la fois au plan médical, au plan du diagnostic, mais également au niveau des conditions d'hébergement des malades et de l'hôtellerie, de façon à permettre à l'hôpital principal de disposer d'une offre nouvelle au-delà de, du globale de l'hôpital euh, de l'hôpital principal qui doit être aussi rénové. a des efforts par la direction générale de remettre à niveau tous les services qui sont des services anciens, de remettre à niveau l'équipement, surtout sur le volet diagnostic, et de disposer de cet outil moderne. Nous avons choisi une entreprise sénégalaise joint venture avec une entreprise turque. Donc c'est Dakar Construction et Silla, entreprise turque. Il faut dire que ce groupement a travaillé de façon très correcte et a pu nous délivrer ce chantier. Bien sûr, la finition est attendue autour du mois d'octobre 2024. J'espère qu'ils vont respecter les délais. Mais c'est l'occasion aussi de féliciter le ministre des Forces armées, le général, chef d'état-major général des armées, le général Mamtierno Dien, qui était à l'époque du projet le directeur de l'hôpital principal de Dakar. Son départ, je l'ai désigné pour continuer à suivre les travaux, coordonnateur du projet. Mais je félicite également notre première femme générale, de l'armée nationale du Sénégal, la générale médecin général Fatou Fall, qui est le patron de l'hôpital principal, qui va hériter de ce projet, de ce bijou, et qui trouvera les moyens de le rendre performant avec un mécanisme de recouvrement qui permettra un fonctionnement particulier. Nous n'aurons plus besoin avec nos nouveaux hôpitaux. Ce matin, tout à l'heure, je venais de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui est un hôpital de 670, avec toutes les spécialités médicales. Nous sommes ici à Principal, avec ce que nous aurons dans cet hôpital, on n'a pas parlé de l'équipement, mais je pense que des, les experts pourront vous parler de ce qui sera mis en place dans ce dispositif, qui est aussi un hôpital militaire, et c'est ça la particularité. toute la discipline, avec également toute la rigueur pour que cette polyclinique soit, en plus des autres hôpitaux, un lieu où les Sénégalais n'auront plus besoin d'évacuer à l'étranger les malades. Il reste que dans la mentalité, il faut que les gens changent aussi et qu'ils évoluent. Nous avons les personnels médicaux qu'il faut, qualifiés comme il le faut, que ce soit les professeurs, les médecins, les techniciens, les infirmiers, le personnel, tout est là pour que les Sénégalais se soignent dans leur pays. C'est la raison pour laquelle nous avons injecté autant de ressources pour relever le plateau médical et attirer même des malades d'autres pays pour finalement faire du Sénégal un hub de tourisme médical. Donc euh, vraiment, je suis très fier du niveau d'exécution et je souhaite que les chantiers seront livrés à bonne date.

ak hôpital principal ku nekk it xam ko ci Sénégal ak ci Afrique ak ci àdduna bi ñaari hôpitaux yooyu nag li leen màndargaloon mooy dañu yàgg ndax hôpital de Dantec am na lu ëpp téeméeri at moo taxoon ñu war ko tabaxaat ñu mujj ko toj ba mu jeex takk tabax fa lu bees loo xam ne hôpital bu mucc ayib la ci taar ak ci équipement kooku mu ngi dox ni mu war a doxe fii itam muy principal nga xam ne dëgg-dëgg bokk na ci hôpitaux yi ñu gën a am yaakaar ci réew mi ak ci Afrique dafa manqué woon cadre boo xam ne dana danañ mën a ku ku feebar rek ak noo mënti toll ak dayoo boo mën a am nga war a mën a ñëw faju si anam yoo xam ne dana ànd ak sutura sutura bi nag mooy secret médical bi waaye surtout nan buñ lay yóbbu ngay def ay rajo ki scanner rek yeneen ak yeneen mu mun a nekk ci sutura loolu dafa am solo moo tax ñu utal ko ay bërëb yoo xam ne néeg yoo xam ne daanaka ay néegu hôpital néegu hôtel la te nit ki malade bi dana mën a def lépp ci ay soin wala ci ay rajo te du génn wala duñ ko gis loolu dafa am solo ah Sénégal nag jàpp naa ne hôpitaux yi bu pare ak yeneen yi ñu def ci biir réew mi ak hôpital oncologie mbiru cancer bi ñu def ci Diamniadio ak yeneen yi nekk ci bëpp gox waratuñu soxla di yóbbu ay nit bitim réew doonte nit ñi dañ jàpp ne ku demul ci réew tubaab yi rek doo doo faju te loolu amul ndax fii dañ fiy faj doomu aadama yi ñuy wér ah, ci war a dem nag day dem rek mu dem Amérique ak France ak mu mënti doon Sénégal bu sa àpp jotee da ngay dem kenn mënu ci dara waaye war nañu ñun sénégalais changer suñu xalaat te ni ñu xalaatee ne feebar moom ku ko dégg rek damay jël avion dem déedéet li ñu fi def amuloon kon bu amee war nañ mën toog faju fii docteur yaa ngi fii am nañ xam-xam bi am nañ yéene bi matériel bi mu ngi fi matériel moo doon manqué li ñuy wax plateau médical am na lépp lu ñuy def ci lu gën a xarañ bitim réew boo ñëwee fii di nga ko fekk boo demee hôpital Le Dantec di nga ko fekk boo demee hôpital de Touba da nga ko fekk bu Tivaouane da nga ko fekk ak yeneen hôpitaux yi kon dafa am changement bu réeree bu am li wax si tubaab changement de paradigme tollootuñu niveau bi ñu toll woon kon xel itam war nañu avancé ñu faju ci réew mi di former suñu docteur former suñu professeur di leen jàppale mu des nag lu mbir mi rafet rafet lu mu baax baax hôpital dañu war a fay pour faju donte lu bëri état bi dafay def ay subvention waaye bu fekkee ne kii ñëw di nekk ci hôpital bi def weer wala ñaari weer bu génnee kenn du fay bu yàggee hôpital bi day mel ni mbalit du mën a du mën a continuer donc loolu mënul nekk il faut que tam waa hôpital bi ñu doxal rigueur bu rëy rëy bu ëpp li fi am naa ne sax moom am nañu rigueur bu baax ci wàllu euh, facturation parce que léeg-léeg bu malade ñooy moom bu amul pexe boo moytuwul dañ naan ko demal nga seetiwaat say mbokk alors que léeg-léeg nit ñu ne nañu fay ba pare ñu doog a joxe corps bi loolu tam lu doy waar la mais il faut ñu am mécanisme boo xam ne dina permettre lii ñu mun ko maintenir mun ko entretenir su ko defee hôpital bi mun fi nekkaat ay ati at loolu daal mooy li nga xam ne moom lay wax c'est le legs maanaam mooy ndono bi ñu bëgg a bàyyil Sénégal ci wàllu infrastructure médicale parce que ci domaine boobu lañ nekk mais domaine boo mënti jël lu mel ni def nañ ko pour que Sénégal gën a jëm kanam maa ngi sant moom di gërëm